asamaan ñëpp moo ci gën a sell amul benn téere bu sa bàyyi ko ci asamaan bu mel ni alquran xabaar yi gaa yi jiitu mi ngi ci ñeenti nit ñi war a ñëw Malaka suñu yëfi bopp gis Malaka doomu aadama yi ak jinne yi teraanga yi am ci kaw ci alquran moo ci gën a rëy ndax mooy ñëw di leen gindi ngir ñu am ngërëmal seen borom borom bi subhanahu wa taala def ni kenn du ci jàpp lu dul moy na ci lu dëgër te day gindeeku kenn du ko bàyyi lu dul dafay sànku dafay alku te it dundu ko xajam lay am borom bi subhanahu wa taala du ñu wax ci saar wi di suratul qital wala suratu muhammad ci laayey fukkeel ak ñaar borom baa ngi wax subhanahu wa taala audu billahi alsamici alcalimi min alshaytan alrajim bismi llahi arrahmani arrahim إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكاين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم جاءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم لا يجي إن شاء الله موينك سنو بندب تايب borom bi subhanahu wa taala mi ngi ñuy nettali ci saar wi nga xam ni mooy suratul qital wala ñu koy wax surat muhammad alquran mbokk yi borom bi subhanahu wa taala faram fàcceel nañu ci mboolem loo xam ne dañ koy soxla ci sunu dundu àddina wala yëf yi jagal sunu allah téere la bopp bu sell sunu boroom taamu dënn yu sell yi tàbbal ko ci ñoom ñuy ay ndab yu koy wattu borom baa ngi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow day lu jiitu alquran di wàcc nekkoo woon ab jàngkat firoo woon ijji waaye yàlla moo la baaxe wàcce ci yow téere boo xam ni ay aaya yu leer la sunu borom sottax ndiku ko ci dënnu borom xam-xam yi moo tax may wax ni alquran ci boppam maanaam mokkal ko mooy tàmbali am xam-xam waaye ñàkk koo mokkal mooy tàmbali ñàkk xam-xam te it alquran dënd bu mu dugg dënd booba dooratu dënd bu ndaw fa suñu boroom ndax bokk na ci ndab yi nga xam ne ñooy taataan di wattu di sottax di ko alquran borom bi subhanahu wa taala dafa séddale alquran ci ay tëkku ak i tiitalaate ak i bégalaate ak xememalaate léeg-léeg mu indi ay misaal yu leer ngir doomu aadama yi wattandiku léeg-léeg mu indi ay jajj léeg-léeg mu indi ay nettali léeg-léeg mu indi ay misaal léeg-léeg mu indi xabaari gaa ya fi jiitu woon léeg-léeg mu indi xabaari tukkiteg àddina léeg-léeg mu indi ay ahkaam muy ay àtte moo tax téere bi bi jumlatihi da ngay fekk dajale na mboolem lu julli ci àddina bi soxla ba àddina tukki ci jamono bu nekk loola nag ñi nga xam ne ñoo jàng alquran xam xeeti xam-xam yi ci génne ñoom xam nañ ni alquran mboolem xeeti xam-xam yi mën na caa génn te it téere la boo xam ne ba wut dara ginnaaw bu suñu borom leeralee ci laayay fukkeel ak benn ginnaaw bu mu leeralee ak lëpp ci xeeti mbaax mbaax yi nga xam ne defal na ko ñi gëm yàlla rawatina ñu shahid ak kéemtaan yi nekk ci kaw suuf nga xam ne bu ñu doxee ñu gis ko mën caa waaru borom bi leeral ni ñi nga xamante ni kat ñoom ñooy yéefar yi ñoom amuñu péete gu wóor maanaam ci liñ wéeru dëgërut waaye ñi gëm yàlla ñoom li ñu wéeru mooy lu dëgër la mooy sunu borom sunu borom mu ni inna allaha sa borom yàlla yudxilu dina tàbbal alladina amanu ñi nga xam ne ñooy ñi gëmoon yàlla wa amilu saalihaati tey jëf ay jëf yu baax jannaatin ajjana joo xam ni tajri dafay daw min taxtiha ca suuf ga al anhaaru ay cawle ay dex ay ji ay dige la waaye dig bu baax la borom bi subhanahu wa taala mu ni yàlla de dina dugal gaa yi nga xamante ni ñoom ñooy ñi ko gëmoon tey jëf ay jëf yu baax àjjana joo xamante ni dafay daw ca suuf ga ay sewnde àjjana ji mbokk yi sunu borom dinu dig te yàlla na borom bi boole ñu si ña koy dëkkee loolu yomb na ko lool moom sunu borom nga xam ni loolu wàññiwu ko dara mu jéggal nu yërëm ñu nangul nu suturaal nu loola borom bi subhanahu wa taala wàññiwu ko dara borom bi subhanahu wa taala mu ni sunu borom dana tàbbal ñi gëm yàlla waaye tey jëf ay jëf yu baax waxoon naa leen ko ci dars bi weesu ni ngëm yàlla ci boppam balaa muy jariñ borom jëf ju baax da cay ànd loolu wuuteeg li nit ñi wax xol moo takk xol bu ta moo takk loolu wax ju yàqu la borom bi subhanahu wa taala ñami fay mooy ñi nga xam dañuy jëf ay jëf yu baax jëf ju baax ji day tege ci kaw ngëm loolu da lay firndeel ni maanaam jëf ju baax boo ko gisee ci doomu aadama mandarga la bu lay wan ni kii gëm na yàlla waaye bu fekkee nee na gëm na yàlla te gisoo muy jëf ay jëf yu baax loola bul ko gëm loolu moom nattab alquran la te natt bu wóor la borom bi subhanahu wa taala mu ne yàlla nee na dina tàbbal ñi gëm yàlla ajana joo xam ni tajri min taxtiha al anhaar ca suuf ga ay sewnde da cay daw ay géej ak ay dex mbokk yi ñu bàyyi xel ni borom bi subhaanahu wa taala ajanaam ji daf caa def ay xeeti xéwal yu bare bare bare yoo xam ne jéggi na dayoo te yooya ji jenn la ci aay ñëw ci bindab tey waaye jeneen aay ju ko gën a yaatu mi ngi ci kanam borom bi xemem loo nanu ci façon xemem loo bu ne mbokk yi ci ajana kër goo xam ne boo fa duggee doo xiif doo mar doo feebar doo ñàkk doo jàmbat doo sonn doo yàqu doo yàqule doo màggat doo génn mboolem yi ak yi nu xamut ak yi nu limut mbokk yi mi ngi daje ci àjjana ban xeetu xéwal la doomu aadama xam boo xam ni xaw naa nuróog bii amut dëkk boo xam ne boo fa duggee doo génn at ya nga am doo ko weesu ab sikkim sax doo ko sax ngir ñu lay wan ni gone nga ah loo soxla ñu jox la doo feebar doo jàmbat doo wanent doo sibiru amut lenn luy naqari bakkan lu fa am borom bi subhanahu wa taala mu ni dama leen a teetal ba teetal leen wax ju naqari wax ju naqari sax doo ko fa dégg jant buy tàngal amu fa ba ngay ñaq sedd buy seddal amu fa ba ngay soli jagat laa yarawna fiha shamsan wala zamharira ca suuf ga ay tewnde ma nga fa ay dex dexu meew dexu sàngara dexu ndox ak dexu lem te yooyu insha allah aayaa ngi ñëw ju koy leeral sunu borom mu ni danaa dugal ñi gëm yàlla ajana joo xam ni ca suuf ga ay sewnde dafay daw walladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoom dañoo weddi woon sunu borom lanka def ay santaaneem sunu borom mu ni yatamattaun ñoom de dañuy bànneexu wa yakuluuna ñuy lekk kama takulul an'am comme ni jur gi di lekkee wan naaru sawara bu ñu faatoo maswan lahum mooy seen wàccuwaay ni sunu baram di jàppee ñi gëm yàlla te doon jëf ay jëf yu baax tàbbaleen ajana ju neex noonu la borom bi jëlee ñi nga xam ni ñoo nekkoon ay yéefar ci àddina ñoom seen yitte mooy lekk comme ni jur gi lekkee gis nga bi yéefar gis nga bi yéefar lim mën a lekk ab jullit mënu koo lekk la ko waral mooy yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ab jullit benn mbàq la am ca lay lekkee yéefar moom juróom-ñaari mbàq la am loolu yonent moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam ab jullit benn mbàq la am ci lay lekkee ab yéefar juróom-ñaari mbàq la am la may sens jullit mooy bismillah ji muy wax buy lekk la ñàkkal yéefar sens mooy bismillah ji muy ñàkk a wax benn borom xam-xam bu mag nee na ab seytaane dafa dajeeg moroomu seytaaneem kenn kaa ngi duuf ponkale kenn ki yooy jeex ki duuf ki te ponkale ni ko waaw yow noo def ba jeex tàkk ni mu ni ko man de damaa nekk ak waajoo xam ne dafa gëm yàlla lépp lu muy lekk rek ma ñëw nar a bokk ak moom bu waxee bismillah rek dootuma bokkati kenn ko man de waa ji mag ju sàggan la ma yàlla boole joo xamante ni moom du lekk mukk ba wax bismillah moo tax lu mu nar a lekk ma lekk xam waxoon naa leen ci dar si yële passé ci tàmbali suura jeexital suuratul ahqaaf ci wa way sarafna ilayka nafaran min al jinn nit ku nekk yaa ngi ànd ak ab seytaan gis nga seytaane moomu soo génnee sa kër bay ñibbisi da lay topp yonent bi nee na boo nee tëll sa kër nga ne bismillah mu ni cam tey day du ma am fu ma fanaan buñ la taajale lekk nga ne bismillah mu ni cam tey du ma am fu ma reere waaye nee na su fekkee da nga dugg sa kër waxoo bismillah mu ne adraktul mabit tey moom am naa fu may fanaan buñ la taajalee lekk muy reer nga yótte waxoo bismillah mu ni wala acha may wax may dooleel reer keroog seytaane moog yow yéenay bokk fanaan xoolal yi xeeti njàngale ak ni mu amee solo ak nit ñi tey niñ ci sàggane ñaata yoon ngay lekk te doo wax bismillah ñaata yoon ngay dugg sa kër doo wax bismillah moo tax seytaane am ci yow doole lool gis nga kon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci leeralam yooyu ci ngay xamee ni kon seytaane moom dafay dimbali ab yéefar ci wàllu lekk suñu borom mu ni ñoom dañuy lekk aka naan comme ni bàyyi ma yi di lekkee ak di naanee moo tax sunu borom ni darhum yakulu wa yatamattaau wa yulhihimul amalu fa sawfa yaalamu bàyyi leen ñuy lekk bàyyi leen ñuy naan tey bébét di naal di teg buñ dajeeg man danañ xam borom baa ngi wax subhanahu wa taala ñi nga xam ni dañoo weddi yàlla ñoom dañuy lekk di naan ah comme ak jur comme ni mu ko waxee ci saar wi di suratul muhammad sunu borom ni walladina kafaru gaa yi nga xam dañoo weddi sunu borom ñoom yatamattaun dañuy bànneexu yakuluuna yatamattaun dañuy bànneexu wa yakuluun dañuy lekk kama takulul anaamu comme ni nga xamante ni noonu la jur gi di lekkee sunu borom ni wan naaru sawarakat maswan lahum mooy seen wàccuwaay sunu borom ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ka ayin aka bari lool min qaryatin ci ab dëkk boo xam ni hiya ashaddu quwwatan moo ëppoon kàttan lool min qaryatika allati ci dëkk ba nga xam ni ah ah axrajatka say mbokk ci lañ la génne ahlaknaakum yàlla mu ni alak naa leen fala naasira lahum amul kenn koo xam ne daf leen di dimbali bi maana xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay mbokkam dañ koo génne woon makka keroog biñ koy génne mi ngi jooy ay rangoñam di tuuru ci ay lexam muy wax dëkk bi naan ko yow de yaay suufas yàlla si gën a sell ci àddina bi te yow laa gën a bëgg ci ay dëkk bu ma saay bokk génnewul woon du ma dem gis ngeen wa id yamkuru bika alladina kafaru li yuthbituk aw yuxrijuk li yuxrijuk wa yamkuruna wa yamkuru llahu wallahu xayrul makirin suñu borom mu ni keroog ba say mbokk dajee di naal ay pexe ngir génne la wala ñu sànk la ñu rey la wala ñu génne la borom bi subhanahu wa taala moo la xetti bi génn googu nag dañoo naal am pexe pexe moo xam ni dañuy génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sànni ji ko benn waaye mu ne oh déedéet boobu ngeen ko defee kon mu waar ñeneen ah nañ ko tëj du génnati ñu ne oh kon ay mbokkam duñ ko nangu nan seet beneen dëkk boo xamante ni ñoom soxal nañ ab dof bu mel ni Muhammad ñu may leen ko ñu ne oh bu demee foofu day am doole benn waaye bu saay saay mu ne xam ngeen nu ñuy def. dëkk bi li bi nekk ci ay famille la ñuy jël kenn ku ca nekk famille bu nekk benn waxambaane ñu songandoo yonent bi rey ko su ko defee bu ñu nekk ko rey ñu ni waa dëkk bi yëpp gis nga façon bii xeeti dëkk yi dañ koy def léeg-léeg léeg-léeg bu ñu amee njaaxum gu ñu bëgg a def dañuy dajaloo ñoom waa dëkk bi yëpp defandoo njaaxum gis nga police ñëwee police mënut a yóbbu waa dëkk bi yëpp léeg-léeg nit ñi niñ koy defee xëy na day juum moo tax léeg-léeg muy rate waaye façon bi yàgg nañ koo def mooy waa dëkk bi yëpp nañ ko defandoo bu ko defee su police di dikkee di mënal kenn leen ndax ñëpp a ko def la ñuy wax bi loolu amee ñu dajaloo wut seeni pexe tànn seeni xale yu góor yàlla daal di yabal jibril mu ñëw mu ni ko bul fanaan tey ci dëkk bi génnal dëkk bi nga gàddaay keroog la génn di jàng surtu yaasin fekk gaaye ña ngay toog ca bunt ba di leen xaar suñu borom nelaw loo leen mu tibb suuf xëpp ko ci seen kaw bopp yi dem yoonam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suñu borom mi ngi jàjju ci aaya ji ay nit waaye nit yooyu est-ce que ñoom danañ dégg ay jàjj jàjj gi mooy ñaata ci ay dëkk yoo xam ni hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajat dëkk yoo xam ni ñoo ëpp doole lool sa dëkk bii nga xamante ni say mbokk ci lañ la génne borom bi subhanahu wa taala mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam akhrajat ka sa dëkk bii la gaa yi génne dëkk yi ma alak nga xam ni ahlaknaakum alak naa leen ñoo gën a rëy sa dëkk bi fuuf fala naasira lahum amul kenn ku leen dimbali ah yéen a ngi génne yonent bi yéen xanaa da ngeen a xamul ni dëkk yi nga xamante ni yàlla alak na leen ñoo gën a rëy fuuf dëkk yi nga xamante ni mooy màkka te ñooña ba leen di yàllay alak amul ku leen dimbali kon yéen it bu leen di yàllay alak du am ku leen dimbali suñu boromu ni afaman kaana mu ndax waa ji nga xam dafa nekk ala bayinatin ci lu leer min rabbihi lu bàyyi ko ci boromam koo xam ni affaire yi leer na lool ci moom xam na yàlla xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam lislaam xam njub xam sunna xam bidaa xamu caay-caay xamu njub xamu njubadi waaw kii nga xam ne yàlla defal na ko njub kaman ndax da ngeen yaakaar day mel ni waa ji nga xam ni zuyyina lagu dañ koo taaralalal suu amali gi ñaaw ñaawi ay jëfam wattabau ñu daal di topp ahwaahum seeni bànneex laaye ji borom bi subhanahu wa taala mi ngi leeral ñi gëm yàlla ñàkk a yam goo xamante ni daf koy ñàkk a yam ki yàlla gindi ak ki yàlla gindiwut moo tax mbokk yi dinaay faral di wax ni gindeeku suñu borom tawfiq ju rëy a rëy rëy la gis nga may yi li ci gën a rëy mooy yàlla may la ak gindeeku moo tax boo seetloo gindeeku lim la ko ñaanloo ñaanloo wu la ko leneen lu dul moom fatiha yoo jàng am na ihdina siraat al mustaqim teraka boo jàng am na fatiha ubbi jullit boo koy def am na ñaan njub boo jullee ba noppi sa sa taaya am na ñaan njub boo taaya ba sëlmal am na ñaan njub maanaam baatat njub gindeef mooy loo xam ne li nga koy ñaan ci bis bi ñaanoo lu ko to- lu ñu toll ndax bu dee jaamukatu yàlla dëgg nga bu dee jaamukatu yàlla dëgg nga laax te bari ay naafila njub di nga ko ñaan lu ëpp juróom fukki yoon ci bis bi di nga ko ñaan bu dee jaamukatu yàlla nga yow par bis bis bu nekk sunu borom mu ni awaman kaana mayitan ki nga xam ne daa dee te ku dee ki mooy koo xam ne moom gindeekuwut yàlla da ko bàyyi muy nangi nangi rek ki dee fa ahyaynaahu man yàlla ma dundal ko dekkal ko mooy ma dal di koy gindi wa jaalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas ma defal ko leer koo xam ni moom lay doxee ba koy gindee ko kaman mathaluhu fi zulumaati laysa bi xaarijin minha yàlla muy ndax dana yem ak ki nga xamante ni dafa nekk ci lëndam te du ca génn mukk déet comme ni nga xam ne laa yastawi zulumaat wala nuur lëndam ak leer du ñu yem guddeeg bëccëg du ñu yem tàngoor ak seddaay du ñu yem wa kadalika laa yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun gis nga ñi xam ak ñi xamut ñoom du ñu yemal sa yem laa yastawi tamit ashaabu naari wa ashaabul janna waa ajana ak waa sawara duñ yem gis nga boo seetloo alquran ay yoon borom bi sonta day comparé ay mbir yoo xam ne nit ñi dañ ko bëgg a yemale te du yem afa najaalul muslimina kal mujrimin mu da ngeen yaakaar da ngeen ñëw ba àllaaxira ma jël bandi yi def leen comme jullit ñi mu jeex ma tàbbal ñëpp ajana maalakum suñu boromul yéen lu leen dal lan moo leen dal kayfa taxkumu ba ngeen àttee nii am najaalul muttaqina kal fujjaar a da ngeen a bëgg ñëw ba àllaaxira ma jël ñi ma ragaloon yemale leen ak saay saay ta jàpp tàbbal ajana wala ma jàpp tàbbal sawar déedéet kitaabun anzalnaahu ilayka téere bii ñu wàcc ci yow moo lay leeral ni loolu du demee noonu gis nga sunu boroom subhanahu wa taala mu ni afaman kaana mu ndax waa ji nga xam dafa nekk ala bayinatin ci lu leer min rabbihi gu bàyyi koo ci suñu borom muy gindeeku kaman ndax day mel ni ki nga xam ni zuyyina lahu dañ koo taaralalal suu amali gi ñaaw ñaawi ay jëfam wattabau ñu daal di topp ahwaahum seeni bànneex yàlla mu ne ñooñu du ñu yem kon dafa jaadu ab jullit fu mu toll muy dimbali ko borom bi sootala di ko ñaan gindeeku ndax gindeeku ak ñàkk gindeeku ñoom ñaar du ñu yem sunu borom mu ni masalul jannati kaay leen nag ma misaalal leen àjjana joojee nga xam ni allati ji nga xam ni waida al muttaquun moom laa dig ñi ma ragal allahu akbar waxoon naa leen ni yàlla dafa melal àjjana ci façon melal wu ne ci leeral loo xam ni day tax li ñu tuddee assawq assawq muy namm ak xemem ak yàkkamti caa tàbbi sahabatul kiram ridwanullah alayhim bokk na ci tabax gi leen yonent bi tabax bañ mel ni ñu mel jumtukaay yi leen ko may mooy ñoom yonent bi daf leen doon def loo li ñuy tuddee shawq ci ajana mooy namm loo leen yàkkamti loo leen tàbbi ajana ndax melokaan mi ko suñu borom di melal léegi bala may wax ci ajana jooju damay wax ni borom bi subhanahu wa taala alquran bokk na ci xeeti yëf yëfaan yim ko tëggee mooy misaal misaal waxoon naa leen tànk bi may tàmbali ni am na ay àtte ay xaraam ak yu dagan am na ay àtte yu araam ak yu dagan am na ay tëkk ak i tiitalaate ki xemem loo waate am na ay nettali te it nag nettali melokaan la woo xam ne wu kéemtaan la ci uslubu alquran la xam ngeen ni mbokk yi doomu aadama ci boppam dafa bëgg nettali ak lu mu mën a doon nag même bu dee li ngay nettali baaxul sax bu la romboon nga koy nettali day bëgg a déglu moo tax borom bi feesal dell alquran ak ay nettali waaye am na lu ñuy tuddee al uslubul misaal yi méthode boo xam ni yàlla day misaal alquran da cee fees dell dell ëpp na ci ay téeméeri téeméer ci ay misaal waaye misaal yooyu mbokk yi ñun dañoo war a fexe comprendre misaal yooyu ndax ñàkk ko comprendre wóoru imaam ji ma leen doon nettali démb ci guddi muy amr ibni murra nga xam ne moom lan jàngaloon aaya ja nekk sur soora mu daanu xëm xam ne maa ngi ko doon nettali démb ci guddi ci defaru xol imaam jooju nee na ida marrat bi aayatun aw misaalun min kitaabillahi lam aqilha bakaytu ala nafsi nee na saa bu ma rombee benn aay yàlla di ci misaal comme misaal bi ñu sol tey masalul jannati amr ibni murra nee na su ma rombee benn aaya buy jàngale misaal ma xool xool aay bi comprendre ma ko muy damay jooy damay jooy sama bopp ñu ne ko looy jooy muy lii day wane ni man xaw ma dara aw ma xel man aw ma xel ndax yàlla nee na wa tilka al amthaalu misaal yaa ngi nii ci téere bi nodribuha linnaas maa ngi koy saddal nit ñi waaye wa ma yaaqiluha illa al aalimuun yàlla mu ni ñi xam rek ñoo ci mën a jariñu kon ñi xam ñooy ñi am xel ñoo ci mën a jariñu kon man xaw ma kon man aw ma xel mbokk yi moo ñun bu nu jàngee aaya buy sadd misaal ci alquran te comprendre ko ñun kon nu war a def te moo ne misaal ci boppam dafay taqrib al maani day jegeel comme nangam nga ni misaal bi comme nangam mu daal di leer moo tax borom xam-xam yi jàngale luga dañuy wax ni misaal ci boppam dafay taqrib al ashiya ila zihn mbir yi da koy jegeel ba bopp mën koo comprendre yàlla nag subhanahu wa taala comme ajjana amul ci kaw suuf suñu borom subhanahu wa taala dit ñu ajjana te melokaan wi ajjana mel amul kenn ku la ko mën a décrire ba mu mat ku dul suñu borom borom bi daal di wàcce ay misaal di ñu leeral ajjana ni mu mel soo demee ci suratu raad masalul jannati allati wa'ida almuttaqun comme aaya ji suñu borom ni misaalum ajjana ji nga xam ne dig naa ko ñi gëm yàlla ah mu ni tajri taxtaha al anhaar min taxtiha al anhaar ca suuf ka di ay sewnde dafay dox daw mu ni ukluha daimun lekk ka dafa sax dag amul rak amul rak amul jeex wa zilluha keppaar ga dafa dëkkee tàlli amul naaj wu tàng ndax laa yaroona fiha shamsan wala zamharira mu teg ci ni tilka uqba alladina taqaw wa uqba alkafirina annaar fii de laa fas yéenee wàcc ñi ragal yàlla waaye ñi ragal suñu borom sawaraa ngi leen di xaar alquran nag mbokk yi yàlla dafa def fees na dell ak ay misaal moo tax borom xam-xam yi te ñu yàgg ña ñi nga xam dañuy taalif ci ulumul quran yàgg nañoo taalif misaal ay téere ci misaal yi ñëw ci alquran ku mel ni al imaamul maawardi di imaam bu mag bu ragal yàlla bu taalif lu bari ci lislaam am na benn téere bu mu taalif boo xamante ni daf ca yaxal misaal yi nga xamante ni moo rot ci alquran ak faram-fàcce ga alimamu suyuti rahimahullah wa kadalika boo delloo ci téere boobu di al itqaan fi ulumi alquran ma ngi ko cay leeral gis nga boo delloo ci téere boobu pour wan la ñu ne alquran misaal yi ci nekk bawut dara dara exemple bu nit di joxe rek alquran misaal na lu ni mel alimamu suyuti mi ngi nekk di toxal ci alimamu almawardi moomu soo delloo ci téere boobu tudd na ko fa muy al itqaan fi ulumi alquran yeneen i borom yi xam-xam tudd nañ ko seeni téere benn waay bu ñuy wax aba ishaq muy ibrahim ibni mudarib ibni ibrahim nee na benn bis dama dégg sama baay di ma nettali ni ma dafa laajoon alxusayn ibni alfadl ni ko man de dama seetlu yéen ñiy tafsir alquran façon bu nekk yéen a ngi koy misaal ni am na ci alquran léeg-léeg ngeen ni alquran wax na nangam ak nangam ak nangam léeg-léeg ngeen ne alxuraan wax na nangam ak nangam ak nangam mel ni yéen da ngeen bëgg a wax ni alxuraan ba wut dara lu waaye di wax alxuraan wax na ko maanaam boo dikkoon suñu suñu misaalum wolof mi proverbe yi nga xam ni olof da koo am ah ay ku wal mburu te du dëkk ginnaaw bukki mbaar xeeti proverbe yu am solo yooyu olof di ko wax mu ne waaw yéen nee ngeen làkk bu nekk la muy waxtaanee alxuraan waxtaane na ko ci biiram ci misaal yi muy sadd sëriñ bi ni ko waawaaw loolu de wér na mu ni ko léegi man dama am lu ma jaaxal mooy dama am ay laaj yoo xam ni ay proverbe la yu arab di wax ndax alquran andi na misaal yu ni mel wala déet mu ni ko bismillah yow laay dégg mu ni ko ba ci njëkk mooy xayrul umuri awsatuha mu ni mbir yi la ca gën mooy la ca gën a digg doomu loolu nag du xadis bàyyi leen ci xel ñu bare bare dañuy wax naan xadis la xadis boobu dafa bàyyi wéru donte maanaa bi nag wér na mbir yi la ca gën mooy la ca gën a digg doomu xam nga arab day léeb loolu mu ni ko loolu yemuma ci alquran wax na ko waaye alquran wax maam lii lu ëkk équilibre moom la yàlla gën a bëgg loolu la misaal bi wax mu ni ko alquran wax na ci lu ëpp benn mu ni ko ban aaya mu ni ko wala tajal yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutuha kull al bast yàlla nee ne bul jël sa loxo bi gàdd ko ca loos bi da maam nay ba lem sa loxo bi doo joxe mu ni bul jël sa loxo bi taalal ko di joxe ba jeexal tàkk mu ne ko loolu lu muy tolloon mu ne ko ah waaw boobu de baax na boobu de moom digg doomu lay jàngale mu ne ko ak beneen mu ne ko yàlla dane walladina ida anfaqu lam yusrifu walam yaqtulu yàlla nee na sama jaam yu baax yi ibadu rahman yi piir yi bokk na ci ñoom bu ñuy dépensé du ñu yàq te du ñu nay mu ne ko noo gisee boobu mu ne ko ah wax dëgg yàlla boobu de équilibre lay wane wax dëgg yàlla mu ne ko ak ban mu ne ko yàlla mu ne wala tajhar bi salatika wala tuxaafit biha booy julli bul jàng ca kaw kaw kaw kaw kaw booy naafila ci guddi mu ne ko teyit bul suufeel sa baat ba walakin bayna zalika na ne ci diggante mu ne ko boobu nag mu ne ko ah wax dëgg yàlla neexut ba neexut waaye nag yooyu équilibre lay jàngale kon misaal moomu leer na mu ne ko jàllal ci beneen mu ne ko ndax fekk nga ci téere yàlla bi fu ñuy waxee man jahila shay'an aadaahu arab yi proverbe arab yi dañuy lépp ni ku noonoo benn mbir rek ku réere benn mbir daa fekk daa noonoog moom maanaam mbir boo ko xamul li li arab yi léebaat naan al insanu aduun li ma jahil nit moom noonu la ci lu mu xamul mu ne waaw doomu aadama su réeree benn mbir rek da koy noonu mu ne ko waawaaw yàlla nee na bal kaddabu bi ma lam yuxiitu bi ilmi yéefar yi wetti nañ mbir moo xam dañoo peeg dañ koo peegul dëgg-dëgg xam-xamam waaye buñ ko peegoon duñ ko weddi ah boobu nag mu ne ko waaw wax dëgg yàlla boobu baax na de ak ban mu ne wa id lam yahtadu bihi fa sa yaquluuna hada ifkun qadim kooku moom tafsiroon nañ ko ci suratul ahqaf su bi ñu gindee koo wut ci alquran ci lañ commencé naan lii ay nar la ay sos la mooy doomu aadama lépp lu mu réere rek daal di koy noonu mu ne ko ah wax dëgg yàlla wax nga dëgg de boobu de misaal la bu leer bu alquran joxe mu ne ko beneen mu ne ko arab yi dañuy lépp ni ihdar sharra man ahsanta ilay mooy tandikul musibay koo xam ne yaa ko defal teraanga loolu la arab yi naan sammin kalbaka yàqul ka léeg-léeg am na xaj yoo xamante ni boo leen duufalee ban duuf bala ñu màtt kenn yow la ñu njëkk a màtt olof yi naan ku yafal sam xuuy balaa daan kenn yow lay njëkk a daan gis nga làkk yi ñoo ko xaw a nuróole mu ne ko waaw arab yi dañuy lépp naan wattandikul musibay ki nga xam ni yaa ko defal njekk loolu fu ko alquran waxee mu ne ko wa ma naqamu minhum illa an aghnahum allahu min fadli yéefari màkka yi madina lii tagg seen xol yi li leen metti du lenn lu dul yàlla moo leen defal am koom-koom te mi ngi ko jaarale ci barke bi yonente bi sallam maanaam barke bi yonente bi mooy maanaam fadl yi ci ngëneel yi yàlla defal yonente bi sallam maanaam yonente bi am na ay ngëneel yu ko yàlla defal ngëneel yooyu ko yàlla defal maanaam ci ñëw gi mu ñëw Madina leeral ko sabab la doon ci yéen ngeen am te xam ngeen ko ndax yonente bi newoon na xanaa dama leen fekk ngeen ñàkk yàlla may leen te fekk ci sababu ñëw gi ma fi ñëw la waxum kay mu ne ko boobu na mu ne ko waaw wax dëgg yàlla boobu de tolloo naag nit ki defal nga ko njekk ba noppi mu ñaawal jëm ci yow mu ne ko waaw arab yi dañuy leet naan laysal xabaru kal iyaad li sa bët tege du bokk ak li nga dégg loolu moom xadis la moom laysa alxabaru kal iyaan ah li sa bët tege du bokk ak li nga xam da nga koy dégg loolu moom ndax alquran misaal na ko mu ne ko waawaaw ibrahima dani borom bi arini kayfa tuxyi al mawta sunu borom ni ko awalam tu'min mu ni ko bala yàlla wan ma nan ngay dekkalee ku faat sunu borom ni ibrahima ah da ngaa gëmatut yàlla mu ni ko ahon kay waaye ngëm gi gën a dooleeku laa bëgg kon nekkete li nga gis bokkut ak li nga dégg ko ne ko ah waaw boobu de moom jekk na wax dëgg yàlla mu ne ko ndax alquran misaal na luy wane ni nit ki bu yëngatoo tuuti loolu la sunu mbokk yi di wax alxarakatu tuurisul baraka yëngatu mooy jur barke alxarakaat fil barakaat wala fil xarakaati barakaat tustasi ci la yàllay def barke maanaam waa ji dafa mel ni kuy di nga jàpp ni yenn proverbe yi nga xam ni arab yi dañ koy lakk wala alquran te alquran ndekete foo mën a bàyyi ko lakk woo yore boo ñëwee gis ci sa bopp mu ne ko loolu ndax alquran misaal na ko mu ne ko waawaaw wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi ah ah fi sul barab di waxee wa man yuhaajir fi sabilillahi yajid fi l ardi muraagaman kasiran wa saa képp ku déplacé wu tuuti def tuuti effort di gàddaay moo xam da ngay wuti moo xam da ngay jaamu ji yàlla moo xam da ngay commerce ji waaye fas yéene ngaa lewal yàlla nee na di nga gis ay barke yu rëy ak i ubbeeku yu la yàllay defal mu ne ko ah wax dëgg yàlla de boobu tombee naag misaal ma mu ne ko ah arab yi dañuy leen na kama kamatat yi nu tuddaanu loolu lépp leen lañ lay fay loolu ab léeb la alquran ndax wax na waxin wu ni mel mu ni ko waaw waaw yàlla nee na wa man yaamal su an yujza bi ku def lu bon rek ma ne la ko dagaj rek ma def la ko may mooy jazaan wifaaqan timit mu ni ko waaw arab yi dañuy léeb ni xiina taqli tadri bu safee sax wallaay di nga xam li ma la doon wax daa métteeku rek la xam nga loolu olof yi léeb bu safee sax li ma la wax di nga xam lu mu doon xiina taqli tadri arab yi dañuy léeb loolu bu safee saf di nga xam li ma lay wax lu mu doon mu ne ko ndax alquran wax na lu ni mel mu ne ko waaw waaw alquran nee na wa sawfa yaalamuuna xiina yarawna alaadaba man adallu sabila yàlla mu ni bu ngeen demee ba gis mbugal ba mu saf saf wallaay di ngeen xam kan moo tege woon ci yoon wi ak ku tegewul ci yoon noonu la ko toppee misaal yu baree baree baree baree bari ba yegg si ci misaalam gis nga ku koo xam ne ab saay saay la yàlla da koy jox wërsëg bu bare bare bare bare bari koo xam ni baaxut ku baax la borom bi di ko jox tuuti tuuti tuuti noonu la ko toppee ba yegsi ci dafa mel ni doomu aadama yi suñu nekkee ci ak caay-caay ca la leen di suñu borom di gën a jay te bu ñu nekkee ca lañ leen sant natt daal di yegsi mu ne ko misaal bi alxuraan wax na ko mu ne waaw waaw mooy fa sunu borom di waxee banu israil naan leen id tatihim xiitaanuhum yawma sabtihim surraa wa yawma laa yasbituun laa tatihim bu leen napp napp leen lundi mardi ba vendredi samedi bu ko kenn napp muy natt bu leen yàlla nattoon ñoom banu israil lundi jën du am mardi jën du am mercredi du am vendredi du am waaye buñ dee ba jour samedi daal day mel ni jën ya day te yàlla bis boobu la leen tere jën yi day ñëw ci bis yi nga xam ni moom lañ leen leen tere bis biñ la digal napp jën du ñëw mu ne ko loolu mooy wane da ngay nekk ci lañ la sant yàlla nattu la ca nga nekk ci lañ la tere ah yàlla indi la ay xéewal xool xool xoolal déggin bu xóot boobu nga xam ni yàlla da koo baaxe ay borom moo tax gis nga borom xam-xam ku war a fagaru la ku war di fagaru la al imam as-Shafi'i rahimahullah nee na jaadu na ci képp kuy tafsir alquran nga jekk jépp imaamu shafii da nee na dafa jaadu ci képp kuy firi alquran nga jekk nga jekku jekk geeg jekku gi mooy am na nit ñoo xam ne diingat moo leen tax a jóg gis nga buñ la bettee mën nañ laa diingat nga daanu te fekk alquran ji moom yaalu wala yoola waaye mbir mi ci yow la ak yàgg am lum daan am ay nit di dikki ay boromi xam-xam di leen jéem a daaneel ci ay wax defe naa nettali woon naa leen fa misaal moomu waa ji fekkoon benn borom xam-xam di jàngale mu ne ko ah soxna Mariama moo gën a sell yaay Aïcha xam nga ñun Mariama daanaka sunu Mariama la wax dëgg yàlla daanaka kenn du ko wax lu bon sunu Mariama la Mariam sunu Mariam mu ne ko soxna Mariama moo gën a sell soxna Aïcha ah mu ne ko lu tax moo ko gën a sell mu ne ko Aïcha dañ koo tuumaal njaalo ah te Mariam moom doom ji mu am moom wér na ni yàlla moo ko ko may mu ne ko waaw kiñ tuumaal te bët tegewul ak kiñ gis ak doom te bët tege ñaar ñii kan moo ci gën a taq allah sax wax dëgg yàlla nag kañ gis ak doom moo gën a taq ci xelu doomu aadama yi mu pare ni ko nag ñoom ñaar ñëpp a set wicc yàlla moo leen setal mu ne ko waaw et puis sax Isa moo gën a sell seen ab yonent Muhammad pourquoi parce que Muhammad doon takki jabar di dem rek te Isa moom dund na ba faatu takkul jabar mu ne ko kon yéen nee ngeen Isa ah moo gën a sell yàlla ko ndax yéen nee ngeen Isa dund na ba faatu amul doom te yéen a ngi naan Isa yàlla mooy mooy mooy baayam kon kay yéen Isa moo gën a sell yàlla ngeen bëgg a wax kon fa ulqima alxajar waa ji ni mu gis nga yu mel noonu nag moo tax imaamu Shafii nee na jaadu na képp kuy jàngale alquran misaali alquran yi nga moom daf ko boole sax ci waajibaat yi dafa war misaali alquran nga xam ko kon borom bi mu ne wa tilka al amthaalu nadribuha linnaas laallakum yatafakkaruun misaal yaa ngi nii may saddal nit ñi ngir ngeen xalaat fee mu ne wa tilka al amthaalu nadribuha linnaas wa ma yaqiluha illa al aalimuun gis nga misaal yooyu nag ma nga tàmbalee ca masaluhum ka masali ladi sawqada naara ba yegg ci zalika masalum fi tarawil injil ah walillahi almasalul aala ñëw na ci laysa ka mislihi shay'un ñëw na ci fa jaalnaakum salafan wa masalan lil axirin ñëw na ci façon yu bare bare bare bare bari borom bi subhanahu di ko duppañee baat bi waaye lépp di leeral ay misaal kon laaya ji borom bi mu ni masalul jannati léegi nag maa ngi leen di melal ajjana ja nga xam ni wuida almuttaquun moom la yàlla dig ñi ko ragal allahu akbar ajjana jooju mbokk yi yàlla na borom bi boole ñu ci ña koy dëkke suñu boromu ni fiiha am na ca biir ajjana ja anhaarun ay tewnde ay dex min maa'in ci ndox gayri aasin moo xam ni lënjut ndox moo xam ni lënjut yàggaay ba taxu koo soppeeku safut eau de javel génneewul ci ay tiwo doo toog ba yàgg ñu ne robinet tëj na te it nag ndox ma nag léeg-léeg yàlla koojal la ko dala koy koojal ah wa yusqawna fiha ka'san kaana misaajuha sanjabila yàlla mooy da ngay xelli ndox mi di naan nekk yàlla kooj na ko bu yàgg yow yëgoo lu xew mooy li ñuy tuddee zanjabil zanjabil mooy tolloog jinjeer yàlla nee na li ñuy tuddee jinjeer te jinjeeri ajana ya nag laa wax yàlla waajal bopp boppam nga xam ne loxol doomu aadama àggu ca borom bi moo ne moom laay koojee kaas bi kooj mooy ndox mu sedd bi àgg ci guy sëy bañ mënu koo dégg nga tànk ndox mu tàng fële sotti ci loolu wala fi tuddee kooj sunu borom nee na maa leen di koojal ci seen ndox mi zanjabila zanjabil bokk na ci xeeti naan yi nga xam ne ci naan yi gën a baax la bokk ci yaramu doomu aadama zanjabil gis nga pour wan la ni la alquran bàyyiwut dara gis nga boo demee ci saar woowu gis nga boo demee ci saar woowu borom bi dafa leeral lekki àjjana yi ba noppi daal di leeral ni bu ma leen di jox ndox dama leen di jox ndox mu ñu koojee zanjabil gis nga xam-xam saxal na ni xam-xamu tudd saxal na ni xeeti lekk yi ñuy lekk ay naan ay yàpp ak ay yu kenn xamul yi gis nga boo ko lekkee pare jus yi ngay naan yi gën a baax ci yow surtout yàpp bu ko nit lekkee jus bu mu naan bi gën a baax mooy jinjeer ci yaram moo gën a baax ci nit ki naan ko bu fekkee dafa lekk yàpp ba noppi loolu boo ko seetloo ba ci biir ci ngay xam ne gis nga alxuraan ci boppam maanaam même bu ñu ko firiwul sax ni mu toggalantoo rek ci boppam daa méngoo dund bu baax bi parce que li annahu tanzilu min hakimin hamid borom bi ni fiiha am na ca anhaarun ay ay ay dex min maa in ci ndox moo xam ne xayri aasin lu lëndut ay milliards yi milliards yi at ndox ma da ko fay taaje du verte du soppeeku du lënj du am walax njaan du am poussière parce que ki ko war a aar aar na ko te koo koy aar kat bi muy suñ borom allahu akbar am na ci ñoo xam ne ñoom seen ak mbaax ak seen ak màggaay seen ak góorgóorlu mooy waral yàlla ci boppam moo leen di beral loxo nag inna al abraara yashrabun ñooñu moom moom yàlla mu dama leen di beral loxo da ngeen yaakaar ne fi ne suñu góorgóorlu gii comme ni ma leen waxoon yéefar bi julit bi dañuy àgg àjjana ñu yem da ngeen yaakaar ne fi ne ñi gën a jàmbaare ci àddina jëne balaa xëy ñu yem ak ñi gën déedéet du noonu de innal abraara yàlla mu ni gaa yi baax yi yashrabun min kaasin kaana misaajuha kaafura ñooñu foofu laa ni lay joxee waaye fële nag ña nga xamante ni ñoom romb nañ abraar nga xam ne dañoo dem ba jeex takk ci yàlla subhanahu ay jaamu yàlla piir lañ set wecc bëgg baax bañ mooy yàlla mu ni ah ñooña bu ñu yegsee ayna yashrabu biha almuqarrabun am na bët boo xam dama leen koy beral yàlla mu ni ñoom moom ñoom rek almuqarrabun mooy ñi nga xam moom jege nañ yàlla ñoom ñoo fay naanee mbir yi yamut de yamut de àjjana da nga fay dugg som waaye nga nekk ca kaw ak kaw xool seen ñi ne ci suuf am ñoo xam ne dañoo mel ni ay sànqalañ ci yow ndax sori waay ay yow boo mokkalee alxuraan doon ko jëfe yow daanaka yow am na ñoo xam ni fan dëkk plafond ba nii aras boo ne ca kawam dara doxul seen diggante ak aras dugul plafond yéen fi yàlla mel ne kuy ñaan ajana ñaanal firdaws ndax firdaws moo gën a kawe ca ajana ya te it dex yii ngay dégg ca firdaws lay ballee te it nag la ko tiim mooy arasu yàlla allahu akbar nga xam ni yow moom kenn rek moo la sut féete la kaw muy yàlla féete allahu akbar ok loolu neex na de firdaws xam ni yàlla rek moo la supérieur fi ne moo la féete kaw waaye fi mu ne yow sax góorgóorlu ak sax mbaaxaay yeggal na la ca kaw sunu borom subhanahu wa taala mu ni inna al abraara yashrabun min ka'sin kaana misaajuha kaafuura aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yàlla mu ne may xëttale bëti ndox yi ñuy daje ndoxum ajana borom xam-xam yi dañuy wax ni borom bi soota daf ko misaal ci gayri aasin maanaam gayri aasin bi maanaam ndox la moo xam ne gayri mutagayir wa gayri muntin suppeekuwut changé wut amul ay cafka yi sunu ndox àddina yi di caf saf te it nag yàlla beral na loxo yonent bi saa sallam dex gu ñuy tuddee kawsar yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku ca naan dootoo mar ba faw yàlla borom bi boole ñu suñuy naan ci dex googa loolu loolu lu am solo la dex goo xam ne boo ca naanee dootoo marati ba faw abadan borom bi subhanahu wa taala mu ni fiiha nekk na ca ajana ja ah anhaarun ay dex min ma in ci ndox gayri aasin moo xam ne la njut suppeekuwut wa anhaarun am na ak dex goo xam ni min labanin ñu ngi ko defee cim soow lam yatagayyar soppeekuwut taamuhu cafka ba allahu akbar dex ak soow nga xam ni moom foofa la fo xam nga ñun xam nañ ni soowum àjjana dàq mu àddina dex ak àjjana gën a rëy gu àjjana gën a rëy gu àddina borom bi subhanahu wa taala mu ni ak dex lu tol ni géej moom laa leen defaral ci meew laban meew moo xam ni lam yataxayyar taamu génneewuñ ko ci battax jur gi loxoratu ko lu mu taaje lu mu yàgg-yàgg du ko tax a way ah teyit lu mu taaje lu mu yàgg-yàgg-yàgg-yàgg du ko tax a téex teyit lu mu taaje lu mu yàgg-yàgg-yàgg du tax muy génne ab dax allahu akbar boobu xeeti xéwal borom bi nee na maa ngi ko waajal ci ajana ja dex ak meew nga xam yow da ngay tànk di naan rek te xam ngeen ajana li ko gën a kéemtaane mooy fi mu ne nii boo doon tànk di naan fii ak yaa ngi tànk di naan muy jàll ci sa biir bu yeboo na nga commencé quatre heures du matin ba quatre heures ci bëccëg ngay naan fii ak yaa ngi tànk di naan muy jàll allahu akbar mbokk yi lii àjjana rek rek rek la am rek quatre heures du matin nga yeewu di tànk di naan di tànk di naan ba quatre heures ci bëccëg fii ak yaa ngi tànq di dugal ci gémmiñ gi muy jàll yow nag bul xam fu mu jëm moom ajana fii ak yaa ngi toog di lekk moom del yooti dugal ci gémmiñ gi rek boo bawut tubaab te loo dugal mu dugg amut wàccu amut gàll amut suur naa da ngay lekk daal ba affaire yi kii nga bàyyi wala nga lekk ba mu yàgg nga seen leneen nga da ngay dajji kees di lekk ba mu yàgg nga seen geneen kees ba fi gii dem gële kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hada allazi ruziqna min qabl waa lii lii bokkut ak kees gi ma nekkoon tànk suñu borom mu ni déedéet utu bi mu du samet bi beneen kees la xool leen dañoo nuroo rek waaye bokk nu de xoolal yi xeeti xemem lu muy xëcc nit ki ges bu ko xoolal ñun bu doon suñu mbiri àddina yi yin nuy dig daf ñuy jaral lu ne ci ay xeeti koom-koom yoo xam ne dañu koy dig muy ay xeeti neex-neex nga xam ne sumu waay ah hôtel bi gën a gën a riche ci hôtel yi àddina yi tey gis nga boo ko tegoon buntu àjjana yow doo fa bëgg sax raxasoo laax raxasu wallahi la azim hôtel bi gën a neex ci hôtel yi àddina bi laa wax dama ni buñ ko monté woon buntu àjjana nga ni yunnu àjjana ni yunnu hôtel boobu doo ko bëgg a raxasoo déedéet parce que daf lay xeeñ daf lay sax xasaw xunn la lay def maanaam lépp luñ la mitaal ci àddina rek jàppal ni ju àjjana ja romb na ko ca kaw moo tax Abdullah ibn Abbas doon wax ni lu ngeen dégg ñu ne am na àjjana mu nuroog li am fii rek xamal ni aw tur kese lañ bokk aw tur kese suñu borom mu ni wa anhaarun am na fa ay dex yoo xam ni min labanin cim soow la lam yataxayyar suppikuwul taamuhu cafka ba sunu borom mu ni wa anhaarun am na ay dex yoo xam ni min xamrin ci sàngara la waaye lazzatin neex lool li saaribina ci ña koy naan wuteeg sunu sàngara si nga xam ni sa waay dafa xeeñ xasaw xunn gis ngeen sàngara si ni mel subhanallah la waajo la sama mbokk ma waxoon ca mbaam foofu ba xam ne moom laay wax ci sàngara si moom sama mbokk ma àndal ñu dem ci côté Bambey ñu romb benn mbaam xuux mu ngi ni ci paccax paccax waa jaa ngi koy xool rek man naa ngi xool xaw ma lu ko jaaxal nag mi ngi xool mbaam xuux bi rek ba mu yàgg mu wiccax ba mu ne ndokk bi ko yàlla aramale ci ñun waaye wax na dëgg de mu ne ndokk bi ko yàlla aramale ci ñun waaye sàngara loolu laa cay wax ndokk bi ko yàlla aramale ci ñun sàngara ni mu xesawee ni mu xoolal xet gi ni mu xasawee xoolal bu duggee dana métti sa bopp dana métti sa biir dana la tawloo sa tubay sàngara moo soob gis nga gis nga sàngara doomu aadama bu ko xasee naan mën naa def lu ne nit bu xasee naan sàngara moom mën naa saaga baayam mën naa saaga yaayam mën naa def lu ne moom la ñuy tuddee ummul xabaa'is moo tax li ci yonent bi wax néew na bàkkaar bu mu ko wax sàngara ka koy jaay ka koy jënd kay signé kii ba facture ba chauffeur ba koy dugal ca woto ba borom saret ba koy yàpp ka koy jàppale mu yebbi ñooñu ñëpp yonent yàlla bi neen ci rëbb mi lan bokk allahu akbar yonent yàlla bi nee na ku dëkkee naan sàngara ba faatu yàlla da koy tàbbal ci dex gu ñuy wax ah nahrul xawta ñu ni ko googaay gan wala tiratul xabaal ñu ni ko googaay gan mu ne gis nga dem àll ak saw mi yureeku ci waa sawara am na menn mbalka mu muy wadd mbalka moom fa la ñuy tàbbal naan ko sàngara maanaam dem àll nit ñi nga xam ñoo nekk biir sawara ak seen saw ma ak seen salte ya am na suuf benn mbalka boo xamante ni foofa lay tàbbi nee na naan ko sàngara ma bu faatoo te tuubut foofa lañ koy tàbbal naan sàngara nag nattu la de nattu la de bu la bu la ci yàlla musalee rek mucc nga waaye boo jàngee ci ñu yàgg ña ba tey sax da ngay gis ñoo xam nattu la ci ñoom de gis na ku ne am na natt xam na xam ne xam ne sàngaraay na toom kee sàccay na toom kii fen mooy na toom kenn ku nekk ak nattu ba nga am gis nga bu la ci yàlla musalee mucc nga santal am na benn saxaaba bu mag bu ñuy wax abu mihjal moom yàlla da ko nattoon naan sàngara te xoolal ci wàllu ngawar lim ci man maanaam bu teewee ci xare moom daanaka xol day seet gis nga yàlla ni nga ko nattoon ci naan sàngara ba xaadisi ya nit ñi dem bay jihaad fi sabilillah mu naan sàngara naan saad yow bu ñu fontoo laa wax nit ñi dem ca xare ba nga naan da ngay takk ay jabar fii di wax ay wax yoo xam ne kenn ñu xam ne dafa naan ñi yow waaye bis boobu la ko yàlla gindi xittali ko xoolal yàlla bu la naree gindi rek moom daal fiñ ko yeew mu toog la mu yàgg mu dégg fas yi di ngexal gis ngeen borom métier gis nga da ngay romb benn waay buy tabax mu xool sa waay sa lii daa weng de sa poto bi daa weng fekk ñun ñëpp kenn seetlu ko téer moom it sa waay ki doon ñëw lii kan la kenn ku ci nekk maanaam dafa mel ni la nga nekk boo tey laal doo ko tey gis nga bu muy xajan bi mu déggee fas yi di ngexal dafa taqalikoog sa bopp fa la nekk di jooy jooy yu mett jooy yu mett ba soxna saada moo ñëw mu laaj ko lan la mu daal di koy wax li ko naqari giñal ko ci yàlla ni ko soo ma bàyyee dinaa dem jihaad te su ma deewul dinaa ñëwaat fii yeew sama bopp mu yeewi ko mu war fasu saada saada nga ca kaw di seen fas waa ngi daw mu ni fas wi sama fas la xaw ma ne ku ko war waaye sama fas la jaasi jële may seen sama jaasee waaye man ki war dafa kaalaw xaw ma kum doon nekk abu mihjan la noonu la yàlla def ba xare bi jeex saadu bi mu ne cop fekk dafa yor ay taab mënta woon a xare li mu njëkk a laaj mooy kan moo waroon saa fas wi ñu ne ko abu mihjan mu ne abu mihjan ma ma tëjoon soxna yi ni ko ñoo ko yeewi moo tax mu def lii saadu kontaan lool parce que bokk na ci ñi waral ñu am ngañaay saadu daw daal di koy kot ni ko may naa la fas wi may naa la jaasi ji te billahi dootuma la cawati boo naanatee mu ne ko billahi tey laay bàyyi naan fa la jaaree bàyyi naan ba ni mu faatoo musul naan sàngara nattu la waxoon naa leen ci tàmbali suratu Gaafir yi gisoon ngeen waaja xaritab Omar ba nga xam ni ñun fi mu ne nii pour wan la ni la ñun mën mënuñu ab ànd wala iyaasu billah yal na yàlla musal nu ci tey ku doon ànd ak sab xarit ba mu yàgg nga dégg ni ma ngay naan sàngara nooy def diw kay léegi ni mu bone kooku kay léegi nangam subhanallah du noonu su fekkonte ni mbooloo bu ñu àndee ku dem ba mu yàgg mu ni sama tànk dafa nagam ñu ne ko yow dañ lay bàyyi foofu dem suñu yoon su doon noonu la defe nga ni sëñ bi ànd bi dana baax ku sa tànk nagam bi wàcc na ku dem ba mu yàgg mu fattu ñu ne ah kii de nañ ko bàyyi foofu mu lijjanti pattoom ñun ñu dem suñu yoon ki dox ba mu yàgg mu ni biiram day métti ñu ne ko ah yow de nan la bàyyi fi dem suñu yoon mbokk yi du noonu gis nga nit booy ànd ak moom ba mu daanu jël da nga koy jéem a yëkkati mi ngi mel ni ki ànd ak nit muy lab ci géej da ngay jéem ba sonn boo demee ba xam ne dalaa nar a labal nag nga doo koy bàyyi waaye ñun duñ def loolu Omar ni ana sama waaja ñu ne ko yow de sa waaja sa way naan katu sàngara bu bon boobu loolu wax a wax ba àggal Omar daal di bind benn lettre xamim tanzilu lkitabi min allahi alazizi alalim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول laa ilaha illa hu lettre bi jeex lettre bi waxul dara alxuraan dong la ci bind kese loolu la ci bind jox ko gis nga bi gaa yi yegsee fekk mi ngi nekk naankatu sàngara biñ ko joxee lettre bi mu jàng ko rek dafa jonkon mu jooy mu jooy jooy yu métt ñu ne ko waaw yow Omar lan la wax ci lettre ba ngay jooy muy daf maa fàttali ni yàlla xaafiri zanb day jéggale bàkkaar kon fi ne war na maa tuub sadidul aqab daf maa tiital ni su ma tuub dana ma mbugal zé pawlu moo tax ma dellu gannaaw ñun est ce que noonu la ñuy jëflante suñu mbokk yi déedéet diw kay moom nangam diw kay moom nangam di bu ko defee yow ngay bàkkaar ci ay bàkkaaram rek nee naa leen yowmal qiyaam nit dina ñëw yore ay bàkkaaram nit jariñ ko ci bàkkaar gu mu doon bàkkaar ci kawam diwa ka bon diwa ka lii diw muy ay jëw rek ñu lay bindal bàkkaar rek parce que lu mu saay saay saay saay maadaama jullit la boo waxee lu bon dañ koy bind bàkkaaru jëw bu ko defee buñ ko dajalee nag ba mu bari ah moom bàkkaar na baxal ko yow nga tibbal ko ci say tiyaaba baxal sàngara mbokk yi dafa bon waaye borom bi sàngara ajana borom bi nee na sàngara la soo xam ni laa yusaddauna anha doo ko naan mukk sa bopp di metti wala yunzifoon du la sawloo du métti sa biir allahu akbar wa kapsan kaas bu fees dell dihaaxan ak sàngara wa kapsan dihaaxan yàlla mooy damay jox kaas bu fees dell ak sàngara laa yasmauna fiha lagon wala tasiman waxi kasaw kasaw sax doo ko dégg biir ajala moo tax sunu borom mu ni ak dex goo xam ni min xamrin ca sàngara la lazzatin lisharibin dafa neex lool ci ñi koy naan xool leen sàngara tey ni mu wasaaroo nga xam ne mooy ummul xabaa'is luy bon sàngara ko gën a bon te it nag waxuma la mooy yàlla ga ca nekk waaye gis nga boo koy naan feebari xol yim la mën a jural tey ñiy gëstu ci wàllu faj dëppoo nañ ci ne naanum sàngara ak tuxum cigarette lim mën a andi ci ay xeeti jàngoro ci yaram bariwut lu ko mën a andi sit na tuxum sigaret nga xam ni moom daa bon am bon am bon moom daanaka yow yàlla lakk gula sax ngay lakk sa bopp loolu la xaw a jege yàlla lakk gula ngay lakk sa bopp gis nga fii lay yàq ay xëtër lay yàq gis nga dama dama su su manqué mu jàll safar soosu fa muy jaar ci xëtër ya foofu du palaasam waru fa wan a jaar même ci wàllu santé nii rek fu saxaar am ni dañuy tere nga di fa nooyi parce que loolu saxaar waxuma saxaar cigarette de saxaar rek laa fa muy jaar dañ lay tere nga di ko nooyi lu ko waral parce que loolu day dugg ci poumon yi boo seetloo ñi nga xam dañuy liggéey ci ay cimenterie wala ay fële ca seen affaire yooyu weex yooyu seen calcaire yooyu gis nga ñooñu protège yooyu buñ ko jëlul li ñuy nooyi li muy àndal fa muy jaar ci xëtër yi du palaasam nooyaayu palaas yooya nga xam ni ngelaw lu set moo fa war a jaar di dugg ak di génn lay génn am na lu muy dégager lay dugal am na lu muy jàllale ci yaramu ci tiwa yi gis nga saxaar sax su fa jaaree daf koy yàq moo tax cancer da lay yomb lool sax lool boo gisee tokkat sigaret cancer yomb ko lool la borom bi subhanahu wa taala mu ni maa waajal ci ajana sàngara soo xam ni lazzatin lisharibin dafa neex lool ci ñu koy naan sàngara gën a bon ci nag moom ndax lu bon bon bon kii tux sax mi ngi ànd ak xelam waaye sàngara moom da ngay teqalikoog sa sago ngay wax ay wax yu bon wax yoo yow koo xamee ne magum jëmm dem ba am jabar ami doom sa waay mën a naan saw sa tubay fii génn xale yi di la yuuxoo xoolal doya di gi ci yàlla def loolu amu ci àjjana sunu borom ni wa anhaarun am na dex yoo xam ni min asalin ci lem la ko yàlla defaree mu soppa gu ñu setal ba mu set wécc mooy lem goo xam ni laafu yemb amu ca lem goo xam ni du yemb moo ko doon nal loolu la ibni kathir wax lem goo xam du yemb moo ko doon nal gis nga borom bi anhaaru min ma gayri aasin wa anhaarun min laban wa anhaarun min xamrin wa anhaarun min asal lem goo xam ni musaffa lem piir allahu akbar lem piir arab yi bu ñee lem asal musaffa mooy lem piir lem gu kenn raxut lem gu kenn raxut goo xam ne ñun bu doon sunu lemi àddina yii bu doon lem gu kenn raxut boo jëlee beneen almen nga ne ko capp ci lem gi xam nga daa war a tooy beneen bu doon beneen almen da nga koo def ci biiram ndox boo génnee kos luy xew ah du tàkk parce que poison bi ci nekk day yàqu lem piir fii ci àddina boo ci ne capp beneen almet boo génnee booy kos muy tàkk lem piir fii ci àddina boo daggoon tey ba fii yëpp ŋàppatiku nga ne ca tàpp loxo def nii booy suba muy wér loolu bokk na ci mandarga yi ñu koy xàmmee fii ci àddina fële nag moom fële yëf ya gën a piiree nag loola moom borom baa ko waajal te loxol boppam borom bi subhanahu wa taala mu ni walahum ñeel na leen fiiha ca àjjana ja min kulli samaraat mboolem fir wi bu ñu bëgg yàlla mu ni waajal naa ko ci ajana bi maanaam amul looy kamaan ñu naan dafa manqué wala xaaral tuuti déedéet wa daaniyatan alayhim zilaaluha sunu borom mu ni keppaar gi daa ñëw ba jege si la wa zullilat qutuufuha tazlila yàlla nee na dama maa lay xool dañ la koy xool subhanallah mbokk yi ajana lépp automatique la lépp gis nga fii jaat na am ay bunt yoo xam ne dégg naa léegi boo jubee rek mu la tijjeeku gis nga àjjana moom léppam nag automatique la moom lekk nga automatique la naan nga automatique la yaa tout gis nga àjjana da ngay jub benn bunt bu tijjeeku àjjana moom da garab gi day ñëw da nga amal ne mandarine laa soxla saa mandarine bi ñëw ba tiim sa bopp bi nga nar a laaj la déedéet affaire yi automatique la de wa wa xulli la xutuufuha tasli yàlla mu ni mooy dañ la koy xoolil faf nag wa zullilat xutuufuha taslila laa maqtuatin mooy amul jeex yekk-jéeg yaa ngi naan jeex na déedéet boobu xam naa ñu sant siise bu ñu fa duggee danañ saalit wallahi danañ saalit ñu sant siise bu ñu fa duggee danañ saalit moo tax benn bis nee na àjjana bu amoon bu amoon saalit ba dee ndaw dee ñu dee ñu bari ndax doomu aadama fii ci àddina rek la ko yàllay defal ay xeeti xéewal mu saalit saalit goo xam ni daa jéggi dayoo saalit goo xam ne saalit bu jéggi dayoo la bu jéggi dayoo fii ci àddina naa yabuma siise siise waaye nag li may nettali moom lu am la ku ma dëkkal moom ma ko nettali koo xam ni moom kéemtaanu yàlla gi sax siise la sant nag ci ñoom nee na ndaw si daa boot doomam dem ca ngénte la xam naa ngénte li neex lool affaire yi laax yeeg yu kenn xamut mu lekk ca ba pare ni fes doomi jàmbur bopp yóbbu nee na ñu mu yegg jëkkër ji ni ko waaw yow kii kan la mu gestu rek daal départ daw ki ma ko nettali yàlla xam ne ni sii salaasa mu ne ma lii du ay tooñ de mu ne ma du ab doy léeb de lu am la wax dëgg yàlla suñu kaw la dal nag neexul ba neexul xoolal xoolal doomu aadama dimension bu mu mën a taalitee nii ci àddina fa fa yoo àllaaxira allahu akbar borom bi subhanahu wa taala mu ne walakum fiha min kulli samarat yaa tout amul dara lu manqué kee ci pomme yi kee ci banane yi kee ci mandarine yi kee ci orange yi lépp allahu akbar yàlla subhanahu wa taala waajal fa lépp loo xam ne doomu aadama soxla na ko ci xeeti xéwal maanaam amul luy jeex ñu naan dañ ko commande rek xaar leen commande bi yegteegu la dafa yéex déedéet lépp automatique la loo soxla yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam da ngay lekk am picc ba noppi sànni yax ya yax ya daal di jugaat composé picc ba dem yoon maanaam ajana ci boppam mooy loo xam ne buñ la koy waxal day mel ni yow lii ay lépp lan lay wax moo tax al imam borom al imam al qaxtaani borom nuuniya téeréem boobu nga xam ni daf koo taalif ci ay way nga xam ni xaw naa mat juróom benn téeméeri bayit ak lu topp boo ca delloo bi mu yegsee ci ajana allahu akbar da caa wax ay wax yu daw yaram wax yoo xam ni wax yu kéemtaane la ci ajana ak xeeti xéewal ya fa sunu borom dina tili bi mu yegsee ci dex yi mu ni anhaaruha min gayri ma uxdudin jarat subhana mumsikiha an ilfayadaani ah mu ne ajana de anhaaruha dex ya dex la yoo xam ne amul fenn fooy xool naan fii la ballee nga naan buñ ko fattoon dootul ñëwati mu ne amul da ngay gis affaire yi di wëndeeluy dem rek wasaaroo ci adduna bi lool te doo jekk ñu yàgg ñu ne benn tiwo toj na mu ne subhana mumsiki an ilfayadaan ki ko téye ba affaire bi du saaroo tiwo yi du toj du maam mu ni tudd naa teel la kooka allahu akbar ajjana ci boppam maanaam borom bi daf koy xemem loo ñi gëm yàlla xeetu xemem loo goo xam ni loo soxla gis nga ku ne am nga problème ku ne ci nit ñi am nga problème te sa problème bokkut ak problème ka ca des waaye gis nga kenn ku ci nekk boo ñëwee ñu régler sa problème am na koo xam ni affaire toilette ko neex kee lekk ko neex kii naana ko neex suñu borom lakum fiha ma tastahihi l anfus lu neex bakkan rek suñu borom ma ngam mu ni ma ngam wa talazzul ayun lépp loo xam ne bët bu ko xoolee kontaan ma nga ajana ngay gis benn waay boo xam ni garab gi sax ci digg këram cent ans ngay daw keppaar gi doog a jeex loolu mooy wa zillim mamduud wa maa'in maskuub robinet yoo xam day xellee ko rek amul tëj maanaam ajana amul ne fi ay tëjal robinet bi déedéet maa'in maskuub robinet yëpp koy xelli rek moom day xelli bul xam sax fu muy jaar yow ah gis nga fii laa romb Dakar ma dem ba mu yàgg ma romb benn rond point bi nekk côté RTS ma gis benn fas wu defar muy esthétique ci loolu di lu xaraam ma gis ay robinet di xel li ma ne ah billahi du sax loolu laa waxoon dama ne lii du sax du wëy waaye ba ma fa rombaatee gis affaire buy ci laa xamoon du wëy am na yoo xam ne àjjana rek la mën a am affaire buy xel moom ak fu mu mënta jëm même bu doon xel li di dellu si waat fañ ko jëlee woon sax affaire bi du wëy maa im masku di xel li rek man kay ba ma ko robbee jaraan ni lii moom du wéy moom bu soobee yàlla ndax yooyu mu mënta am fii moom même fii ak réew mu développé mu ne boo ko essayé da ngay dem tuuti rek gis ni yàq nga ca milliards yu ko jëru te jëru ko wa maa im maskuub wa faakihatin kathira péru yi ni gadd ni gasar la maqtuatin amul rak amul daggal sa bopp wala mamnua amul baal bii bokk ci ah lii neex na ne mu ne jazaam bi ma kaanu yaamaluun lii lépp maa leen ko fayee ndax la ngeen doon liggéey ci àddina laa yasmauna fiha lagwan wala taasiman waxi naxasa kandang waxi kasaaw kasaaw ah waxi caaxaan ay mbóosóor waxi tangalangaay sunu borom yi du ngeen ci dégg dara illa qiilan salaaman salaaman jàmm jàmm rii boo jaar rek salaam lañ fa bi wallahu yad'u ila daari salaam yàlla mu ne moo tax maa ngi leen di woo ca kër ak jàmm ga lii mooy jàmm de mbokk yi jaamu yàlla mooy jural nit ki jàmm gis nga mbokk yi lii la saxaaba yi xamoon moo tax amul woon sago ci tàbbim ajana amul woon sago ci tàbbim ajana maanaam nit ki nga xamante ni xam na ni lii moo koy xaar kooku lum ko dig wala luñ ko digal ci ay def-def yoo xam ne ay danger am na ca dana ko def ngir man faataan bi nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala ci mbaaxaayam ak yërmandeem ak suturaam yal na yàlla boole ñu min ahlil janna ci ña nga xamante ni dañuy xéewlu ci xéewal yi nga xam ne la waajal foofa sunu baramu ni walahum fiha min kulli samarat mboolem fir wi am na fa wa magfiratun min rabbihim yàlla mu ni baal naa leen lu ngeen ma defoon ci kaw suuf allahu akbar baal naa leen lépp lu ngeen defoon ci kaw suuf mbokk yi lii war naa tax ñu góorgóorlu de gis nga mboolem néew yin suul armel bi nekk suñu dëkk ak mboolem armel bu nekk ci àddina bi fii nu toll di wax ak yéen ña fa suule ñëpp ñee ngi fii ñee nga fee maa la ko amul kenn ku ne ci diggante bi amul benn armel booy dem nga fekk fa koo xamante ne ñaan xaaral tuuti ñu régler say dossier déedéet illaa yaa nga ci àjjana ji xéewlu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bu nit ki faatoo ba mun karag nakir ñëw ba ñu lijjanti ay dossier loo doon wax ci muhammad nak nakaloo loo doon wax ci l'islam nak nakaloo yàlla day wax ubbil leen ko benn bunt ci àjjana gis nga buñ la ko ubbilee yonent yàlla bi neen liy njëkk a yegg ci yow rek mooy péex ma allahu akbar balaa ñu la andil benn lekk min rawxiha péex ma bàyyi maanaam da ngay jékki-jékki rek ngelaw ni pof ci sa kaw fekk mooy féex mi bàyyi koo àjjana ñëw ci yow loolu moom moom ngay njëkk a gis ci xéwal allahu akbar fii may wax ak yéen tem mboolem ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen ñu faatu te nar a dem ajana fi ne faf jooju dal na ci seen kaw te ñu ngay xéwlu ci xéwale ajana yow nu ñuy xéwloo nag bu la jaaxalee kooku sa problème lay doon ndax yàlla moom mbirum àllaaxira defu ko muy mbirum àddina mbirum barzaq mbirum barzaq la ku ne yaay ber sam sàqum bopp gis nga olof ni maandoo ciy baat de barzaq ber sam sàq la buñ bayee ba noppi ku nekk na ber sam sàq fële boo soxlaa gis nga boo bayee ba noppi dem bay joxe la nga bayoon beroo am sàq wallaay boo bëggee dund di nga xam fooy jële loo dundee barzaq mooy ber sam sàq sàq mooy loola ñu doon ràbb mu wër nii ah ñii di ko ràbbee ay ngeer ñii di ko ràbbee leneen ah muy nuroog dóor dóor nga wutal ko am mbaxana ca kaw jël sa dugub dugal ko ca bojj ko ba mu sakkan nga bàyyi ko fa denc saa buñ demee ba waxtu cooroon jot wala nit ñi jaaxle wala amuñu ñu lekk nga di ca seqi di ca sàqami gis nga alaxira noonu la mel de alaxira misaal yaa ngi fii ci àddina moo tax yàlla mu ne wa tilkal amsal nadribuha linnaas misaal yaa ngi ni leer wa ma yaqila illa alaalimun gis nga foofa boo fa yeggee mboolem loo doon def luy tàbbal ajara di nga ko xeeb yàlla mu ni gërëm naa leen salaamun alaykum tey ngeen am jàmm yéen lépp bi ma sabartum parce que da ngeen doon muñ allahu akbar gaa yi naan alhamdulillahi alladi azhaba anna alxasan awaay ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne luñ problème tey jeex na yàlla fi amul joxe dépense mu ni déedéet fi amul xëy liggéey mu ni déedéet amul daanu damm mu ni déedéet parce que amul hôpital buy faj amul sangu mu ni déedéet parce que doo ñaq amul wanag mu ni déedéet parce que doo soxlaa dem wanag parfum nag mu ni ñaq wéroon a génn mooy soppali ko parfum ci sa kaw la hawla wala quwwata illa billah ñu ne alhamdulillahi alladi azhaba anna alxasan yow yàlla ñi ngi lay sant yow mi nga xam ne luy problème li ñu tere woon nelaw ci àddina yëpp yaa ñu ko dindi moo damay faral di wax ni soxna yi àjjana ya bu leen yàlla defarul woon bañ taaroo niñ taaroo lu dul am nañ rek duñ la laaj dépense rek xam ngeen ni góor ñi ñooñu baax nañ ci ñoom ndax fii ci àddina gis ngeen góor yi Dakar yi dañuy taamu soxna soo dul jox dépense fii ci àddina soxna soo xamante nii moom daa yori bagage ba doyal ami moyen yor kër ak boppam bi da nga dégg sax góor ñi góor ñi ñoo bëgg lu am dëgg dëgg dëgg dëgg te da nga gis koo xam ni moom ah soxna soo xam ne yor na otoom yor na këram yor na nangam yor na ku la motali sa dépense motali la sa carte de te it nag góor du sëy de góor du sëy de maanaam am na yoo xam ne mbokk yi nañ muñ ba tàbbi àjjana rek yàlla na suñu borom defal lu waaye fii ci àddina ah olof yi nee nañ ku la mottalil sa dépense moo lay mottalil say kàtt waaw waaw boo waxee tuuti mu mottalil la ca des te it nag am na fu muy toll kat bu safee kaani doo ko wax de bu safee kaani lool da ngay noppi rek te it nag lu mu wax it sadaqallaahu laasim nga cay teg rek lu mu wax day wér. la ndaw la waajal ndox na ida qaalat xusaami fa saddiquha fal qawlu maa qaalat xusaami xusaami moom lu mu wax bu yow ngeen dëggal ko ndax moom lu mu wax wér na xam ngeen yooyu moom maanaam dafa am xeeti noflaay yoo xam ne nit bu ko bëggee mbokk yi na bàyyi ba dugg àjjana borom bi subhanahu wa taala mu ne lépp nga fa amul feebar amul faju amul sonn amul jaaxle amul mer yooyu yëpp borom bi subhanahu wa taala teetal na ko nit ñi allahu akbar yàlla subhanahu wa taala mu ne wa maghfiratu min rabbihim yàlla ne na kontaan naa ci yéen jéggal naa leen sunu borom ni kaman huwa mu ndax lii dana mel ni ki nga xam ne xaalidun fi naar dafa nar a sax daj safara nuur fa wa suqoo yàlla mu ni ma nandal leen maa an xamiman ndox mu tàng jër fa qataa ma ngay daggate amaahum seeni butit wax na la qataa ci làkku arab ak qataa qataa moo gën a diis kasara mooy toj na kassara mooy tojate na ba mokk qataa mooy dagg na qataa mooy daggate na borom bi mu ne ndox mi ñuy nandal waa sawara yusharu bihi ma fi butunihim wal julud yàlla mooy day wësam li na seen biir bi wësamaale seen der yi wëlagum am nañ fa maqaabiu ay mbolde yoo xam ni min xadid yàlla mu ne ci weñ lañ ko defaree kullama araadu an yaxruju minha min gammin saa bu ñu bëggee génn rek uidu fiha ñu këmaxaat leen ko ñu dugg ci biir wa duqu adab alxariq lakk leen ci biir sawara si ah suñu borom ni dalika ma qaddamat yadaak lii lépp yaa ko def lii lépp yaa ko yóbbee sa bopp dalika ma qaddamat yadaak wa anna allaha laysa bi zallamin lil abid yàlla du tooñ kenn yàlla borom bi musal ñu ci loolu borom bi mu ne wa suquu ñu nandal leen maa an ndox moo xam ne xamiman dafa tàng jër suñu borom mu ni fa qattaa mu daggate amaahum seen biir ya yàlla mu ne yonent bi wa minhum am na ci naafiq yi ñoo xam ni man yastamiu ilayka dañuy toog booy wax ñi ngi déglu de ni xaaj xaaj jaaral ubbi seeni nopp waaye nga defee ni ñu ngi dégg déggun de xatta ida xaraju min indik gis nga bu ñu jógee ba jataay bi tas sunu borom ni qaalu dañuy wax lilladina utul ilma gaa yi jotoon a xam ñu doon teewlu maada qaala alifan waa kii lu mu doon wax sànq loolu ci melokaani naafiq la bokk melokaani naafiq bokk na ci mooy nit ki ñu koy waxal lu koy jariñ mu ni ko fa ñukk dem di nekk di sonn ca lu ko dul jariñ gis nga naafiq yi bu ñu masaan a toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi di waaraate ñoom ña ngay kabasaate kii nan sunu tool ba kii nan affaire bi lee mu sotti kii nan kenn ku ne di wax ay waxam ba yeggal pour wane ne li ngay wax dara safuñu ci gis nga bu yonent bi génnee saxaaba yi génn ku nekk di commentaire ñuy wane ne saf nañ ne di saf saflu naan maada qaala anifan waa lu yonent bi doon wax sànq maanaam loolu benn critère ngoog ci critère u naafiq nifaaq nag mbokk yi jikko bu bon la boo xam ni xaw tuuti kon mu nekk rek yéefar ndax mbugal mi yàlla wax ci naafiq yi mooy fa gën a xóot ca sawara maanaam ñoom bu doon cin la dañ naan xóoñ la ñoom ñooy waa sawara waa waa naafiq yi ca taat wa ca la ñuy nekk inna al munafiqina fi darki al asfali min an naar gis nga bi yonent bi nekkee màkka naafiq amuloon musul am loolu lu ma taraañee la yonent bi fukki at ñett yi mu nekk màkka yépp benn naafiq amul naafiq mi ngi tàmbalee madina kera bi nga xam ne yonent bi ñëw na mbooloo mi bari moo tax sunu benn sëriñ daana wax wax ju am solo daana wax ni sellaay geeg jub-jublu gii mbooloo mee bariwul rek mu ni ba mbooloo mi bari di ngeen gis lu ne wallaay waxal dëgg cheikh bu mag bu nekkoon Thiès imam Malick Ndiaye defe naa moo doon wax loolu bu ñu nee nii diw ñoom ñoo baax diw ñoo nangam mu ni mbooloo bi daa bareegul rek bañ bari te wax na dëgg gis nga mbooloo saa bu baree rek nga commencé gis lu ci bokk naafiq mooy koo xam ni bu nee la yunn bu xiree bëtam lam lay wan ak lamu fas ca xolam bokk ku soofa nga même ci suñu nattukaayu addina yii tax ku soofa nga moom naafiq moo tax naafiq dafa gaaw lool ci trompé la naafiq ak gaaw lool ci trompé la parce que xam na fi ñu lay naxee yow xam nga ko xam fu ñu lay naxee foofa lay jaar am na koo xam ne xam na ne yàlla moo la sax ci yàlla jooju la lay jaar ida raaytahum boo leen gisee muy tooji bu ko aji saabu seen jëmm yi da lay yéem mboolem melokaan wu jullit di yore ña ngi koy yore di sell sell loo ko baax baax loo ko jub jublu wa in yaqulu bu ñu waxee tasmaa li qawlihim da nga leen déglu que la ñuy wax lu jub lay doon waaye ka annahum xusub musannada ku bonangoog ba mel ni bant bu ñu wéer ci miir xam ngeen bant bu ñu wéer ci miir bu ngelaw buuxee sax mu dox gis nga naafeq gis nga naafeq mook sàcc bu sàcc di nëbbatu ñoo bokk àtt ci ci alquran sàcc bu sàcc ba nekk ci mbooloo mi fi ne booy wax rek mu yaakaar ni ci kawam nga jëm si yàlla mun yaxsabuna kulla sayxatin alayhim boo nee yëpp sàccoo rek ba mu yaakaar ne moom la ñuy waxal ndax xam na ni moo sàcc gis nga de moo tax borom xam-xam yi am xibra mën nañoo détecté naafeq yi ci buntu ci buntu boobu comme ni ñuy détecté sàcc gis nga naafeq li mu yàqal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ka leen jiite woon laanatullahi alayhi muy ubay ibni salul xoolal waa jooju mboolem lu yonent bi yàqule ci daawaam ci moom la jaar moo doon wax naan yonent bi day jéem a mbong mbong lu rek loolu la wax yonent bi yonent bi day jéem a mbong mbong lu ba ñu yegg madina soobee yàlla dinañ ko génne moo ko njabootam sànni ca sënn mooy la yuxrijanna al aazzu minha al azal yonent bi romb ko mu naan waaye puus leen mbaam mi waaye ak baqtaan yu xeeñ yi loolu la wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga de moo tax gis ngeen ni ko yàlla alagee gis nga de benn waay bu ñuy wax Julaas ibn Amr ba wax yonent bi dafa defee ne ñun ñooy ay mbaamam yoo xamante ni benn ñaari ñett nga naan andi leen seen alal yi joxe ko fi sabilillah ñun dañ koo liggéey ñun liggéey luñ ko de far ñu boole gis nga naafiq lim ñu mën a génne ci gémmiñ gi te bu teewee nag sawaay bu la giñalee ba yegg rek bi ko yonent bi wooy moom julaas ni ko yaakob mu ni ko billahi wallahi tallahi génnewuma loolu sama génne saxaaba yépp a ngi toog alquran waa ci yàlla mun yaxlifuuna billahi ma qaalu ñu ngi ni di giñ nan waxuñu ko wa laqad qaalu kalimata alkufri wa kafaru baada islamihim liñ wax sax faf da leen a génn ci li waxuma la ñoo ko wax waaye léegi sax génn nañ ci lislaam faf kon borom bi subhanahu wa taala muy naafiq yi suñu ñëwee ñoom dañuy teewlu teewlu ba yonent bi génn gis nga ibnu ibnu salul keroog Tabuk Tabuk plus de cent et quelques personnes tourné nañ moo leen tax a tourné dañoo dem ba mu yàgg mu géew mu ni ah sama gars yi ñun suñ teet yi moom bu fekkee dañoo faatu ñun ñoo leen nar a takk ah yéen waaye sa waaye affaire bi te ngeen a xalaat waa toog leen ñu réunion ca réunion googu ca la wëlbati ay téeméeri téeméeri nit yoo xam ne dañoo tourné gis nga bi ko Omar ibn Khattab yëgee dafa kontaan mu ne alhamdulillah bi ñu yàlla seppilee ñi sellul ñu dem seen yoon gis nga de li yamiz allahu alxabisa min at-tayyib yàlla mooy sempi ñu seetlu ñu dem seen yoon suñu génnee dañ naan maada qaala anifan lan la yonent bi doon wax léegi suñu borom ni ulaika gaa ñooñu alladina mooy ñi nga xam ne tabaa allahu yàlla dafa tëj dafa kaste ala qulubihim ci seen xol yi wattabau dañoo topp ahwaahum seen i bànneex borom bi mu ni walladina gaa ñi nga xam ni ihtadaw dañoo gindeem jub zaadahum hudan yàlla dina leen dolli njub loolu mooy ki nga xam ne yàlla da ko baaxee muy jéem a sell sellu di baax baax lu di julli jullu ah fu ñuy tafsiree Quran mu fekkee fu ñuy waxee conférence diine mu dem su dee juma mu dem bu dee saraxe mu def lépp loo xam ne mooy wane ne nit mën naa baax ma nga tey jéem kooku yàlla nee na maa koy dimbali gis nga wala dina jaahadu fii na lahdiyanum subulana gis nga am na yoo xam ne ndimbalam yàlla la de léeg ngeen gis nit wala ñun ñu gis nit daal di koy ñee wala fi nee nañ njàmbaar amul ku am ndimbalam yàlla am wax na dëgg de foofu moom olof wax dafa dëgg moom dëgg la jàmbaar dana feeñ nag waaye am na yoo xam ne yàlla moo koy maye gis nga da ngay gis koo xam ni yàlla sellalee ab xolam nga gis koo xam ni ni yàlla jubalee ay xalaatam nga gis koo xam ne ni ko yàlla mayee xam-xam nga gis koo xam ne ni ko yàlla mayee tabe ci alalam yii ay xeeti yëf yëfaan la yoo xam ni boo ko seetee ba ci biir ndimbalu tawfiq la de tawfiq la de yàllaay baaxe ku ko soob ci saxaaba ya mu defal ko lam koy defal comme ni ko soob unzur kay faddal na baadam ala baad yàlla mu ne xoolal nit ñi ni ma leen gënalantee gis nga nit ñi fi ne loo nii rek lan mën a mel nag amul neneen nu nuy mel léegi nag yàlla nag da ngay kontaan ci dogalam xam nga buñ jëlee saxaabu ñoo xanzala yonent bi ni gaaw leen gaaw leen dem jël néew bu ngeen gaawut malaaka yi danañ ko sang de ñu dem fekk mu tooy xepp ndeke ba malaaka yi sang nañ koo gis ngeen jaafa yàlla defal ko ay laaf muy ànd ak malaaka yi dem amr ibn hiram abdullah ibn hiram papay jaabir yàlla wax ak moom kiif kiif ak yeneen ak yeneen ci ay xeeti may fi min bi ñuy dund gis nga yooyu ba léegi day répété wu di am mooy borom bi subhanahu wa taala mooy seet ñu ko soob gindi leen baaxal leen waaw xam nga ne tey kay ku sañoon nag wax dëgg yàlla nga nekk imam màkk kay di jiite foofa comme sañoon kay nga yow foo xam ne yow sawaay boo fa jullee ñaari ràkk rek ah ñu bindal la téeméeri junni tiyaaba ah sawaay foofu boobu nekk imaam yow kay li ngay ma yooyu yooyu may suñu borom la yàlla mu ni unzur xoolal rek kayfa faddalna baadahum ala baadin ni ma jëlee ñenn ñi gën a li ci ñu des mu ni walal axiratu gis nga bu ñu ba alaxira akbaru darajaat fa la may yi di ëppee seddi wa akbaru tafdila ngën a leen tey tamit fa lay ëppee yàlla na borom bi boole ñu ci borom gëneel yu mag yi fii ak fële borom bi subhanahu wa taala mu ni walladina htadaw gaa yi nga xam ne ñoom dañoo ragal suñu borom yàlla mu ni zaadahum hudan suñu borom daf leen di dolli njub wa aataahum taqwaahum yàlla mu ni ma dolli leen tamit ak ragal yàlla may leen ko suñu borom mu ni fa hal yanzuruuna moo ndax nit ñi dañuy yàccaaral rek di xaar illa saa ba alaxira ni ras ca suñu kaw an tatiyahum mu dikkal leen baxtatan ci mbetteel rakki alaxira rakki saa mooy dee kama anna saa tati baxta fal mawt yati baxta alaxira fi ne buy ñëw day jekki-jekki rek ni rës ci sunu kaw waaye yàlla mu ni faqad jaa yegsi na asraatuha mandarga ya gis nga alaxira dafa am ay mandarga yu mag ak mandarga yu ndaw bàyyil xel baax li ma lay wax tukki teg àddina dafa am mandarga yu mag am mandarga yu ndaw bari na bariwaay boo xam ne më nee sukkoolim defe naa def nañ ci ay xutba yoo xam ca loolu la woot mandarga yu ndaw yooyu yëpp feeñ benn desu ci benn benn mandarga mu ndaw desu mandarga yu mag yi moo ci des te diir bi mandarga yu ndaw yi am mandarga yu mag yi du ko am loolu nañ ci bàyyi xel yent bi nee na bi ko yàlla yónnee la mandarga yi tàmbalee feeñ gis nga saxaaba yi dañuy wax ni yónni ki yonent bi rek mooy première mandarga ci àddinaa ngi tukki ndax mooy jeexal yonent yi te loolu xel yëpp nangu nañ faatug yonent bi mooy mandarga bi njëkk bu saxaaba yi tàmbalee lim ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ak faatoom waaye gis nga ba yonent bi jógee bi lay ni mu gis nga bu mujj bi nag du yàggee noonu yonent yàlla bi nee na ah al alaamaatu xarazaatun manzumaatun fi silkin fa in yaqta'i silk yatba'u ba'duha ba'dan mandarga yi tukki teg àddina yu mag yi mi ngi mel ni ab caq buñ takk ci baat caq bu ami fer ñu takk ko ci baat mu ni caq bi bu nee tëppit dagg pututututut yi ngay dégg da ngay dégg mooy heure ci wadd gis ngeen caq bi dagg ni ñu mel per bu wadd rek borom topp ca loolu laay sukkandiku wan la ni la mandarga yu mag yi buy feeñ day toppalante da nga yeewu tey gis benn gis suba beneen fas wala mbaam wala xar wala bëy yàllaa xam taxaw ci digg public di waar ni ca làkk wañ dégg kooku benn la ci masiixu dajjal benn la ci yajuuj ak majuuj ca lañ ah call meer gu ànd ak sawara di bërangu rek mel ni kuy dàq nit ñi di lem nit ñi daw muy lem di leen topp rek jëme àllaaxira jekki-jekki rek seen asamaan si ñuul kub moom la ñuy tuddee ak duxaan ah fartaxib yawma tati samaau bi duxaanin mubin yaxsha annaasa hada adabun alim gis nga noonu su ko defee borom bi daal tukkil addina bi gis nga mandarga yi mbokk yi yu mat a xam la woote woog yonent gi ngeen fi gis sax ci la bokk nag yonent yàlla bi àdduna tukki mukk lu dul da ngeen gis nag ay nit yu bare bare bare bare ay fenkat lu fa trente fenkat kenn ku nekk naan man la yàlla yónni man maa yonent yàlla nangam waaye yàlla benn yonent la mujjee yónni muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yi ndax da ngeen di bàyyi ba dee bett leen dee nag kenn ku ne am nga ca wàll àllaaxira ñun ñëpp a ko bokk waaye dee am ku nekk ak sa bos da ngay gis koo xam ne ndeysaan te li gën a yéeme mooy dee kum dikk ci yow rek bett lu mat di fagaroo ngoog mbokk mbokk yi te gana gob la de buy ñëw du tàggoo buy dem du tàggoo loolu la wolof yi léew mook alal ju lewul wolof yi dañuy wax ni alal ju lewul ak dee ñoo moo ganab doof ñoo bokk yam bu ñuy ñëw duñ tàggoo bu ñuy dem duñ tàggoo doomu aadama bi fu mën a ne ak ci lu mën a ne xam ngeen ni bu amoon sentiment moom malakul mawt du fekk yaay juy waaj a am doom lii bu tooy xet deful dara nàmpagul sax weelu yaayam ñu rey ko xam nga ni xam nga ni malaaka bu amoon sentiment du def loolu kër goo xamante ni sa waay bàyyi ja amut dara yàgg a dund ci souffrir sonn ah taaw bi jàng ba màgg génn ñu embauché ko jox ko bureau jox ko oto mu commencé fayee ko dundal leen ñaari weer accidenté dee xam ngeen ni kii bu amoon sentiment du yóbbu kooku de buur boo xam ni suwaay loo ko laaj am na ko sécurité li nga xam ni mooy dundam lépp xëy paralysé ni këndang dee xam nga ni bu alal ak nguur ak barke doon faj dee ñooñu duñ dee ñoom ñooñu duñ dee de wér gi yaram tànk bu gudd ak barke mënu laa fajal dee saa bu yegsee mënul de baxtatan sunu borom ni da leen di dikkee ci mbetteel faqad jaa yegsi na asraafuha mandargay alaxira fa anna lahum waaw naka lay mel kon ida jaatuhum bu yegsee dikraahum la leen di fàttali muy alaxira comme mandargay yegsi na te ba léegi yéen a ngi foofu sunu boromu ni alaxira bu ne rajax ci seen kaw naka la mbir yi mel sunu boromu ni kon nag bokk na ci wàccaay kon nag li nga war a tàmbale ci wàccaay gi faalam fexeel nga xam ni annahu luy mbir tey mbir laa ilaha amul lenn wala kenn kuñ war a jaam jaamu gi tege ci dëgg tey andi njariñ ñàkk gaa jaamu tege ci lor tey andi musiba illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala gis nga borom xam-xami pas-pas yi ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ni jàng pas-pas xam ko farata la ci kenn ku nekk ci ñun yàlla du ko jéggal kenn li ma wax nii déggu leen ko bu baax a baax a baax faalam wutil xam-xam la la wax ñu ne yàlla bi mu nee wutil xam-xam dañuy iqra demal jàngi nga ne lu may jàngi mu ni faalam xam-xam laa wax ban xam-xam mu ni annahu laa ilaha illa allah demal jàngi pas-pas gis nga lii yàlla du ko jéggal góor du ko jéggal jigéen du ko jéggal maanaam fexe ba xam kan mooy yàlla fexe ba xam pas-pas bu set loola du lu ñuy négocier de déedéet même julli gi sax léeg-léeg mën nga am quelque njuum te fekk ñàkk xam-xam moo la ko yóbbee suñu borom jéggal la ko bu ko soobee asaka ji mën nga def quelque erreur yàlla jéggal la ko fekk da nga ñàkk xam waaye mbirum pas-pas moom yàlla du ci jéggale dara parce que farata la ci kenn ku ci nekk faalam fexe ba xam ni moom yàlla moom kot mooy yàlla moo fi njëkk fekku fi kenn amul fu mu tàmbalee moo fi mujj du fi nekk kenn te doo am fu mu yem loo xalaat am na ci kàttan du lekk du naan du xiif du mar du noppalu du nelaw parce que am na mbindeef yëpp yoo xamante ni mën nañ loolu te moo leen sàkk am na ay tur yu sell ak ay melokaan yu kawe tur ya faw nga xam ko melokaan ya nga xam ko xam lim bëgg xam la muy bañ xam lépp lu pas-pas bëgg muy laa ilaha illa allah bëgg na sellal nga bëgg na wóolu nga bëgg na bëgg nga bëgg na xam nga al ilmu wal yaqin wal qabul al ilmu na nga ko xam wal yaqinu na nga ko wóolu wal qabulu na nga ko nangu wal ixlaasu na nga sellal wal mahabba na nga ko bëgg ah yii bu amut yëgal ni sa pas-pas baaxut yow faalam xamal ni annahu lii mbir tey mbir mooy laa ilaha illa allah amut lenn lu war a jaabu ci dëgg lu dul yàlla wastaghfir li dambik nga jéggalu say bàkkaar aaya ji ni mu toggaloo moo lay wan ni gis nga doomu aadama buy jéggalu ay bàkkaaram te pas-pasam setut bàkkaar yooya muy jéggalu mën nañ ko ko bañ a jéggal ci sababu lan la def loo defoo gis nga de balaa ngay jéggalu fexeel ba setle pas-pas ba pare ndax boo ko setlewul soxlawuñ sa jéggalu wastaghfir li dambik nga jéggalu say bàkkaar gis nga aaya ji bi mu wàccee ak ida jaa nasrullah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bi mu faatoo bis bu nekk dana jéggalu yàlla téeméer yoon mbokk yéen ci ban bàkkaar la yàlla def même bu defoon bàkkaar yàlla ni ko baal naa la lépp lépp baal naa la bu dee loo jotoon def baal naa la ko bu dee lu ñëwagul baal naa la ko te it wa yansuraka allahu nasran azizan dinaa la dimbali ba nga yëg ni dimbali naa la gis nga de waaye yonent bi doon jéggalu yàlla téeméer yoon wastaghfir na nga jéggalu li zambika say bàkkaar walil muminina nga jéggalul ñu gëm yàlla wal muminaat ak ñu gëm yàlla ñu jigéen ñi kon yàlla dafa digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jéggalul gis nga nag ko yeboo jéem a góorgóorlu baax ndax ku baax moo cay bokk de soo demee ci tàmbali suratu Ghafir malaaka yi sax dañuy jéggalul wa yastaghfiruna lilladina amanu malaaka yi dañ naan ay yàlla sa jaam yi nga xam ne ñi ngay yendoo woor yendoo xiif ñi ngi nii di góorgóorlu ña ngay jàng alquran ña ngay def lii ña ngay def laa moom sax def na li def na laa ay yàlla jéggal ko rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman yow yàlla sa mbir yëpp yaatu na lépp am nga ko soo ko defee du la wàññi dara faghfir lilladina taabu gis nga de faghfir lilladina taabu ñi tuub jéggal leen wa qihim azab aljahim te fegal leen bëggalum sawara yàlla suñu borom boo leen ci yoon kon jéggalu mbokk yi lu am solo jéggalu say bàkkaar day waral yàlla dindi say problème jéggalu say bàkkaar day waral yàlla yombal say mbir jéggalu say bàkkaar day waral yàlla yombal li jafe woon ci yow jéggalu say bàkkaar da lay indil ay xitiliku ca tiis yu mag bi yàlla mën a indil jafe-jafe ca alaxira waaye jéggalu bàkkaar sax nag day indi wërsëg istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursil sama alaykum midraran taw baa ngoog wa yumdidukum bi amwalin koom-koom maa ngoog wa banina ak ay doom askan waa ngoog wa yaj'al lakum jannatin tool yi naat wa yaj'al lakum anharan ndex yi fees dell maa lakum la tarjuna lillahi waqaara kon jéggalu mbokk yi bokk na ci li gën a rëy yonte yàlla bi neen tuuba liman wajada fi saxifatihi istigfaran kasira texe ca ajana ah ñeel na koo xam ni dafa fekk ci foo yu jëfam ay jéggalu yàlla yu bari surtout nag laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin gis ngeen yunus njaaxum gam defoon ba yàlla wax jën wa na ko wan yunus di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin yàlla mu ni gis nga kàddu yi bu ko waxul woon ci biiru jën balaa koy denc ba àllaaxira te muy ab yonent ah di faral di jéggalu yàlla subhanahu wa taala lu am solo ngoog mbokk yi moo tax borom bi mun wastaghfir li dambik jéggalu say bàkkaar walil muminina wal muminat jéggalul ñi gëm yàlla ñu góor ñi ñu gëm yàlla ñu jigéen ñi wallahu yàlla moom yaalamu xam na mutaqallabakum li ngeen nekkee fii ci àddina lépp yàlla xam na ko wa maswaakum la ngeen nar a fekki àllaaxira suñ borom xam na allahu akbar li nekkee ci àddina lépp borom bi xam na lan nar a fekki àllaaxira ma ku xamul xam nga li nga nekkee lépp ku ko mënta xam xam nga ne àllaaxira taxul di wax foofu nag yàlla rek ko xam waaye nag bu ay nit ñemee yàlla bay naan bu demee àllaaxira diw mooy def lii diw mooy def la naxi neen loolu du dëgg de wallahi du dëgg àllaaxira ñépp a fa yem ñépp gis nga yëngatu sawara googa fuddatu ga yent yàlla bi nee na même amul malaaka bu koy dégg wala bu yonent ak lu mu jege yàlla lu dul day sukk kon nit taxul di wax mbokk yi nañuy wax nit ñi li leen yàlla wax waaj alaxira moom amut laysa fiha alamun li ahad benn drapeau bu ñaan diwa ko moom wala waa kër ñoom diw ñooy daje fii wala di maanaam waa kër ñoom diw ci boppam sax nag moo amul alaxira fas fala ansaaba baynakum mooy sant yi fii leen koy baax diwey tamaam fi leen koy ba nangam laa sant fi leen koy ba dëkk sangam fi leen koy ba fala ansaaba baynahum yawma idin yàlla mu ni askan amul de même boo ko fay jéem a am amul wala yatasaalun kenn du la laaj sax nag fa foo bokkoon xanaa yow ku la laajut nag mayuñ la foo waxee sax xanaa doo wax boog laa yaakaar mutaqallabakum li nekkee tey wa maswaakum fan jëm lan fay fekki yàlla rek ko alaxira kenn tanewu fa kenn ku dul kii jaamu yàlla mbokk yi taalibe yi gën a màgg mooy saxaaba yi sëriñ bi gën a màgg mooy yonente bi sallam te sëriñ bi gën a màgg ñimewu la wax ay taalibeem yi gën a màgg lu dul la ko yàlla wax la lam leen doon wax lu leer la de ñaanal loo bëgg ba ñaanal la ko mu ne ko xanaa dugg àjjana mu ne ko ah kon ne bu yow nga fas yéenee bari loo sujootal yàlla du ko ko garanteel de lu leer la lay wax gis nga de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen ñëwee maa leen defal lii defal lee defal laa am na capa capacité man koo wax ay saxaabaam waaye defu ko de xam nga lu mu leen waxoon mooy góorgóorlu leen jàpp ci sama sunna maa ngi leen di xaar ca déeg ba bu ngeen yegsee daal ah te yonent bi dina am ñu muy gàttandu sax ñu ne ko ñii bokkuñ ci ndax ñii dañoo sopp loolu sunna yàlla suñu borom boole ci musa kon wallahu yàlla yaalamu moo xam mutaqallabakum li ngeen nekkee ci àddina kon bu yeboo ñu góorgóorlu ku nekk li ngay def yàlla xam nga wa maswaakum lañ nar a fekki ëllëg ci àllaaxira ak bàmmeel yi ak yëpp suñu borom xam na ko yal na yàlla suturaal ñu ci kaw suuf suturaal ñu bu ñu duggee bàmmeel suturaal ñu bu ñu dajee ak moom ci penc ñu ngi ñaan suñu borom ci mbaaxam geeg yërmandeem gi sellaayam geeg kawewaayam bi di ko jaare ci turam yu sell yi yu màgg yi yu kawe yi nga xam ne buñ ko ci ñaanee mu maye te lii nu koy ñaan moom suñu borom wàññiwu ko dara te it ku màgg la moom suñu borom koo xam ne dafa bëgg ab jaam di ko ñaan mu di ko may yàlla na borom bi boole ñu ci waa aljanna yàlla na suñu borom boole ñu ci ñuy texe yàlla nañu musal ci mbugalam yàlla nañu musal ci sawara wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain